alhamdulillah mbokk jullit yu tedd yi ñi ngi sant suñu boroom jalla waala ñi ngi koy màggal màggal gu amul fu mu yem ñi ngi koy sant ci xéewalam yi yemelu amul fu mu yem de seede ne moom dong moo yeyoo ñu koy jaamu de seede na jaamam ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la yónni woon ci ñun mu ñu war koo topp ngir am ngërëmal suñu boroom gannaaw loolu mbokk julit seen daje bii ngeen daje tey xam leen ne day suñu boroom yàlla mooy aji dogal amul benn xeet lu dul ne suñu boroom yàlla dogal na ci ñoom ñu am bis yoo xam ne dañ koy feet na doon feet gu yàlla gërëm la walla feet gu yàlla gërëmul soo delloo ca ña nga xam ne yàlla gërëmul seeni feet la nga xam ne mooy feet ya ma ngay jóge ca seeni bànneex bànneex ya ballee ca pas-pas yu yàqu ya nga xam ne dañ koo yor amma bu dee feeti lislaam suñu borom yàlla mi ngi koy jële ci xikmaam loo xam ne daf ñuy jëriñ àdduna daf ñuy jëriñ alaxira looloo tax mu ne mboolem xeet yi fi jaaroon cam gërëm leen may na leen bis boo xam ne daan ca jël lii leen yàlla wërsëgal ci bàyyu may di ca rey di ca jublu màggal yàlla waaye it la cay jóge ci ndawal ñu koy feetoo borom boobu subhanahu wa taala di ñuy fàttali ne moom day benn borom dong la sant ñu nañ ko jébbalul sant ñu it ñu bégal ña nga xam ne dañ koy toroxlul ñooñu nga xam ne yàlla màgg na ci ñoom ba buñ déggee aw turam seeni xol yëngu ñooñu nga xam ne nii dañuy muñ la yàlla faratal ci ñoom dañuy muñ bàyyi la leen yàlla tere waaye muñ dogal yey wàcc ci ñoom jublu ca ngërëmal yàlla yal na yàlla subhanahu wa taala boole ñu ca ay yéen mbokk julit xam leen ne day ñaari feete ngi ni suñu borom yàlla tëral ko ci ñun feet gu nekk dafa am lu muy mandargaal la nga xam ne mooy feetu korité day mandargaal ne yàlla day santoon nañu weeru yàlla ñu woor ko gannaaw ba nag yàlla ubbil ñu ay buntam ca mooy dajaloo leen ñaan ma ma may leen ngeen jéggulu ma ma jéggul ma ma jéggal leen loolee gannaaw loolu suñ ñaareelu feet bi nga xam ne islaam amul bu ko ñetteel mooy feetu tabaski ba nga xamee ni nii ma ngay jóge gannaaw ba julit ñi daje ca makka daje ci bis bu màgg boobu di bisu arafa loolee ca suba ga suñu borom yàlla def ko bisu feet feet googee nga xam ne mooy bisu aj bu màgg bi suñu borom yàlla subhanahu wa taala tudd ci ab téeréem ngiree ne julit ñi ci seen bopp ak foo xamee ne nii mën nañu fa nekk ñoom it ñu ànd ak waa màkk ca feet googee ca loolu ci xéewul yàlla la ndax suñu borom bu dee dafa tëral ak jaamu yàlla goo xam ne utal nu ko place bu mu ko wóor ne la ëpp ci ay jaamam mënuñoo yegg ca place boobee ca ngërëm la fa ña dem ca place bay sàkku ña nga xam ne dañoo lottit ngërëm loolu lañ bëgg looloo tax borom bi subhanahu wa taala yoonal leen ñoom tamit lu ñuy amee ngërëmal yàlla moo tax sunu bisu démb bi ñi xamoon ngëneelam ñépp woor nañ ko ndax moo dëppoog waa arafa suñu bisu tey bi it falilahi alhamd ñi ngi nii di ko màggal di ànd ak la nga xamee ni nii mooy waa makka ca la nga xamee ne ñoom it ñoo ngi koy màggal tey ca jamarat yi ñuy sànni ca la nga xamee ne mooy watuga ak hëdd yu ya nga xamee ni nii dañ koy rendi gannaaw bañ génnee ca armal ba nga xamee ni nii ñoo ngi ko nekkoo yoon ay yéen mbokk julit ñu ngi màggal suñu boroom di ko màggal màggal gu amul fu mu ab boo léeg di ko sant ci ay xéewalam waaye xam leen mbokk julit lii di it day dafay wone benn mandarga waaye mandarga yooyee ba ca gën a màgg mooy wone wéetal suñu boroom ne yàlla moomu kat ñun julit ñi moom dong la ñuy jaamu mbokk jaamu yàlla googe dafay ëmb lépp loo xam ne ni ngërëmal yàlla ma nga ca ca la ngay wax wala di ko def mu doon lu nëbbu sa biir xol ca ragal gaag yaakaar ga ca dimmilikoo ga xettilikoo ga ca nisër ya ak lu mel ak lu dul loolu waaye it mu la ngay feeñal say jëf na doon julli yaa koor ya la wala leneen du dul loolu loolee moom la sunu borom yàlla di ñuy fàttali ci liñ doon jàng léegi ci jullik it di ñu ko fàttali ci bépp julli ca mooy iyaaka naabudu wa iyaaka nastain nga la wayu julit boo koy wax xamal ne yaa ngi feddali waat benn contrat bu rëy benn dig bu rëy sa digganteeg sa borom ca mooy yàlla yow kese lay jaamu yàlla yow kese lay diminiko loolee mbokk julit da ngay gis ne bépp doomu aadama bu yàlla wërsëgal ba may ko wéetal yàlla googee mu deeyaale ko ku mel noonu ajjana mooy wàccuwaayam sunu yonent salallahu alayhi wa sallam ànd naag muaz ibnu jabal daa di koy laaj ndax xam nga luy aqu yàlla ci jaami ak aqu jaami ci yàlla mu ne ko yàlla ak yonentam ñoo gën a xam mu ne aq bi yàlla am ci ay jaamam mooy nañ ko jaamu buñ ko bokkaaleeg dara aq bi jaam yi am ci seen borom mooy ku ko jaamu bokkaale woo ko ak dara du la mbugal ca dana la tabbal aljanna yal na yàlla boole ñu ca donte ne mbokk ñaareelu mandarga ba gë- mandarga ba gën a màgg bu it di wone mooy wone it ne muhammadu rasulullah yonent yàlla bi mooy suñub yonent ndax lii moo ñu ko jàngal bi ngeen ñëwee bi su ajjuma imam day ñëw directement yéeg minbar xutba dooga julli tey bi su it imam mi ngi julli dooga xutba loolee ñu bàyyi ci xel bu baax donte ne ne yow mi nga xam ne gis nga ma tey duma toogit mbokk nga la waay xamel ne ne na am borom xam-xam yi bari qiyaas nañu ne xutba it ni ñuy jullee juma lañ koy jullee day am ñaari xutba koo xam ne dafa jàpp loolu fa lillahi alhamd donte ne it la bari ca ñoom dañ ne xutba it miinu ñu ci woon yonent bi di toog loolu ñu bàyyi ci xel bu baax mbokk waaye gannaaw loolu mooy mooy sunu yonent boobu ñu wéetal ko nañ xamee ne it mbokk it yàlla yoonal na ko ngir julit ñi beesaat ci seen biir dajewaat ci seen biir faxas lépp loo xam ne ay ñagg-ñagg yeelu nekkoon ci seen biir xol fàttaliku waat ne ñoom benn lañu benn jëmm lañu suñu yeneen sallallahu alayhi wa sallam daa di ne misaalu julit ñi ci ni ñuy bëggantee ko soppante dañoo mel ne benn jëmm rek jëmm jël cër bu ca metti mboolem cër yee yëg ko ci ñàkk nelaw ako tàngaay yeneen ci boobu daan ñu wax ne du ngeen dugg àjjana lu dul da ngeen a bëggante loolee kon mooy wane ne it julit ñi daal di daje ci seen kanamu boroom woote wane la nga xam ne mooy seen mbég waaye mbokk it xam leen ne la nga xamee ne mooy iidu tabaski bi mi ngi ñuy fàttali sunnay ñaari yonent yu mag kii di xalilu rahman yonent yàlla ibrahim ak suñu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ko yoonal xalilu rahman yàlla boole na ko ak doomam ja nga xam ne defoon na ko yonent comme ñoom joxe ci ñoom lan mooy misaalu jébbalul yàlla mbokk julit bi nga xam ne mooy muslim muslim mooy ku jébbalul yàlla lan mooy jébbalu suñu borom won ñu ko ci ibrahim ak ismail ba yàlla di nattu seenu jébbalu dafa sant ibrahima na ko demal jël sa doom nga rendi ko daa di yebal ko ci ismail mu ñëw na ko ay sama doom sama borom nee na ma rendi la kon muy ndigal bu jëm ci ismail waaye suñu borom nee na ñoom ñaar ñépp ñu nangu ndigal boobe borom bi mu ne falamma aslama wa tallahu lil jabin bañ demee ba jébbulu ba ibrahima dépp ko ngir nar koo rendi kon dogu gi am na lan moo ci des mooy deret ak yàpp suñu borom ne ko ibrahima dëggal nga la ma la santoon daa di koy indil lu ko wuute mbokk loolu mooy lislaam islaam mooy ndigalu yàlla bu yegsee ci yow la la ca neex ak la la ca naqari la nga comprendre njëriñam ak la nga comprendreul njëriñam yépp nga bokk koo yemele ca mooy samina wa atana dégg naa topp na mbokk ñi ngi màggal suñu borom di seede na moom dong mooy yeyoo ñu koy jaamu ñi ngi màggal suñu borom di saxal xiiwal yim ñu defal loo xam ne nii mënuñu ko peek ay yéen mbokk julit gannaaw loolu it xam leen ne dana doon occasion ci bu ñu dajee nii ci it sunu soxna yi génn suñu doom yi génn ñu fàttali leen la nga xamee ni nii mooy suñu baasu diine ji xam leen ne diine ji ñuy dund suñu borom da koo teg ci juróom yi ponk ponk ba ca jëkk mooy taxawal julli ngal la way góorgóorlu leen ci loolu yéen ndaw ñi julli googu yàlla wutal na ko ay waxtu sport bi ngeen di def lu bari lu baax la njàng ma lu baax la liggéey lu baax la waaye dee leen xàmmee priorité julli mbokk mooy priorité ci lum mën a doon xatta ñu doon jihad fi sabilillah yàlla waxu leen jihad leen ba pare doogu julli waaye yàlla dane julli leen ci seen biir jihad gannaaw loolu ngeen góorgóorlu ci képp ku yàlla wërsëgal alal xam na ñaareelu ponk ba mooy bu at mi jotee mu xool bu matee nisab mu génn ca zakat góorgóorlu ci weeru koor gi woor ko bor yeen ci am ñu fay ko ku yàlla subhanahu wa taala yombalal nga góorgóorlu sóoraale ak màkk bokk ci sa programme lii it mbokk gannaaw loolu nañu góorgóorlu rafetal ci jaamu yàlla yi jaamu yàlla bi xellu dafa war a profitoo ci ay moroomi jaamu yàllaam profitoo ci mooy lan mooy am ca ngërëmal yàlla ña jiitu ci ñooñu mooy say waajur ña jiitu ci ñooñu mooy mbokki jegeñaala ya waaye xoolal ma jirim ya ak miskin ya bàyyil ma xel la nga xamee ni ni mooy dëkkandoo ya yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na wallahi gëmul wallahi gëmul kan yow mi yàlla yónni mu ne képp koo xam ne ay dëkkandoom wóolu wuñu ayam góorgóorlu leen seen kemtalaal kattan ci la nga xamee ni nii mooy julit bu mu mën a doon nga xool noo koy jëriña bañ a xalaat noo koy jëriñoo waaye gannaaw ndigal yooyu it xam leen ne diine lislaam ñaari laaf lay naawe laaf bay wone ne def leen ak laaf bay wone ne bàyyi leen la lislaam tere la ca gën a bon xam leen ne mooy bokkaale gi ñu wax sànq waaye bokk na ca loolee njabar gu bon gi ngallaway baleen ko bokk na ca lekk ribaaya bokk na ca lu bon ca ñaaw mooy rey nit waaye bokk na ci it njaaloo ay yéen ndawal julit ñi xam leen ne suñu borom terewuñu njaaloo suñu borom dañoo tere ñu jege njaaloo jege njaaloo bokk na ci yow xale bu jigéen ngay génne sa awra yeneen i góor di ko gis bokk na ci nga nangu sa yaram bi beneen góor bu ko daganul di ko laal bokk na ci wéetaay yi ak leneen lu mën a doon njaaloo boobu mu am la ko gën a bon mooy la nga xamee ni nii mooy ak ngóor jigéen di fitna boo xamee ni nii bàyyi leen ci xel bu baax médiata médiatisation biñ ciy def ak yépp loolee ña koy def lañ ca jublu mooy def ko loo xam ne lu banaan la lu ñàkk solo la ci noppi doomu aadama yi ba dootuñu ko garaawal donte ne sunu maam ya buñ ko mësaan dégg tiit faxas seeni nopp loolee xam leen ne loolee di njaalug rey nit suñu borom man koy lënkaleeg bokkaale gañ koy bokkaale nee na képp ku koy def alkaange ma ngi lay ñeel ngalla way góorgóorlu leen ci wàllu alal fi ngeen koy jële moytu leen sàcc moytu riba moytu njumlang moytu détournement moytu leen lépp loo xam ne ak nger la mbokk loolee dalay lor du la jëriñ baqiyatullahi xayr la la yàlla daganal mu tuuti ak a bari wallahi moo gën ci yow la ngay dajale ci loo xam ne jëlewul fu baax moytu leen yéen ndaw ñi lépp lu yàq seen xel ya na doon loolee sangara la brok la ak cigarette bu bon bii nga xam ne nii dafa tasaaro ci seen biir da leen di jural seen mbarum boroom lañu ciy mujje mooy ay yéen mbokk jigéen ñu tedd yi xam leen ne yéenay piyi diine ji ci ci ah defar la nga xam ne mooy fondement ba ca mooy ndaw ña nga xam ne ñoo ciy balle yéen soxna li ngeen am ci seen njaboot bàyyi amu ko ci yéen a gën a jege njaboot gi fexe leen tàggan njaboot googee ci ñu gëm seen borom fexe leen tàggat leen ci bépp wax ju bon ngeen dox seen diggante ak ñoom sàmm leen naka la njaboot gi di solo naka la njaboot gi di génnee waaye itamit ngeen góorgóorlu déggal seen jëkkër yi bépp jigéen boo xam ne nii góorgóorlu na ba matal ay julleem matal ay kooram fexe ba am la nga xam ne muy ngërëmal jëkkëram ku mel noonu dañ ko ubbil mboole mi bunti àjjana yépp fu ko fa neex daal di ko fay duggee ay yéen gannaaw loolu mbokk julit boo nekkee ci feet boo nekkee ci mbég boo nekkee ci naqar ngalawaay bul fàtte bul fàtte ne mbokk ñi ngi ci ab waruwaay di dem waruwaay boobee mooy temps ñi ngi dem di wadd par nank di wadd par nank xool leen it bii ñuy itu tey boo delloo kër ga xoolal tabaski daaw ak tabaski ren ñaata nga xamoon ci say mbokk ñaata nga xamoon ci say jegeñaale ñoo xam ne fekkiwuñu ren nga bàyyi xelit ne loo fekke fekke bis da nga mës a wuute boo wuutee ana foo jëm yaa ngi jëm ci benn jardin ci jardin àjjana balay xaar sa bàmmeel wala nga jëm ci benn pax paxu safara balay xaar sa bàmmeel loolee nag lan nga koy liggéeyee mooy guddeeg bëccëg yi di tegaloo sa kaw su ko defee ngeen góorgóorlu ci seen kemtalal kattan loolee mbokk julit adduna bañ ñoo nax taaru adduna bañ ñoo nax lu mu yàgg-yàgg dañuy masa dem won ko gannaaw amul lenn lu ñuy jëriñ lu dul la nga xam ne defoon nañ ko ci yàlla tax defoon nañ ko ci mu dëppoo ak ngërëmal yàlla jalla wa ala mbokk julit ñi ngi sant yàlla bi mu ñu dajalee ci bis bu màgg bi yal nañu yàlla nangul li tax ñu daje fi ay yàlla suñu boroom yow mi nga xam ne yaa yoona lu la neex ci say jaam yaa yoonal ñu daje fii ci sa kanam ya borom bi ñi ngi lay ñaan nga jagleel ñu sa ngërëm ñi ngi lay ñaan nga jagleel ñu sa njéggal ñi ngi lay ñaan nga jagleel ñu aafiye fi dunia wal axira ay yàlla yàlla boo ñu teqalee lu dul fax nga ñu ci mboole mi bakkaar ay yàlla ni ngi ñu dajalee sa sa jullikaay bi yàlla na ñu ko dajalee ci àddina yi gën a kawe ay borom bi yow yaa gën a xam say jaam tey jii Sénégal penkook sowu taw taw bi tag na fa lool baykat yi ñi ngi jooy la nga xam ne mooy maral ba dara warulu ko lu dul suñu bakkaar yu bari yi waaye nag borom bi yow yaay arhamur rahimin yow yaay al ghafurur rahim yàlla boo ñu toppee li saay saay si ci ñun di def yàlla yàlla na nga xool ñu néew ci ñun ca topp sa ngërëm nga xetti lu ñu yónnee ñu nawet bu barkeel yàlla suñu réew mi wàcce nga fi jàmm jàmm jooju yàlla nag ñu ko sàmmal yàlla nag ñu wërsëgal mooy ba bépp fitna boo xamee da koy yàq ay yàlla yow mi borom kattan yàlla nag ñu fanqal loolee yàlla yàlla nag ñu barkeelal suñu ndaw ñi teeta leen ala sirat almustaqim dox seen digganteeg lépp lu leen di yàqal barkeelal ñu suñu mag ñi mboolem ko wërsëgal alal ci ñun yàlla yàlla na ko barkeelal alalam gide ko ba mu jëf alal joojee fa fa nga xam ne sa ngërëm moo ca nekk képp koo xam ne nekk na borom aajo ci ñun yaa ko gën a xam aajo boobee feebar la bu mu bëgg mu wér wala célibataire bu bëgg a takk soxna wala koo xam ne ñàkk la bëgg naa am ngalla waay yàlla yaa xam ci yaa man yow mi peeg aajo yépp yàlla yal nañu fajal suñu aajoy adduna ak suñu aajoy alaxira allahuma rabbana atina fi dunya hasana wa fi alakhirati hasana wa qina azab annar rabbana اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين في الدنيا والآخرة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد